قديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لوبت بالسفر الحمد لله رب العالمين sant yàlla war na képp kuy jullit loolu la Ahmadou Bamba waxoon kaa leen santale ma sama borom ci teraanga ji ma defal góor gi ci tukki géej gi góor gi demoon maa yombe waaye tamit ñëw indil teraanga bi mu ñëwee lan indil kaay leen ngeen santale ma sama borom ci màggalu Touba gi ma woote xam nga ni màggal chaque année la am rawatina ren gi muy année 2022 mu nekk màggal gu spécial ak Étoile TV yaa ngi gis ambiance bi ni sama ginnaaw maa ngi nii ci euh, barab bu mag bi Touba dinaa la wan lekk jàkka ji dinaa la wan a lekk tamit daayira yi waaye tamit dinaa la wan a lekk cant yi ku wax màggal nag wax jàng alxuraan waaye tamit ku wax màggal wax jàng xasida dina leen loo xam ne kenn mësu kaa gis Étoile xam ngeen dañoo sopp fépp fu gars yi nekk dina leen fa génne waxtaan ak yéen waaye tamit laaj ne lan moo waral màggal ak màggal nan lañ ci war a nekkee ak nan lañ war a comporté woo màggal ndax sëñ bi nee na bëgg naa ko màggal si tamit bëgg naa ko ma santale yàlla waaye tamit si wéyee ma gi ma ma jël yow mi nga xam ni da ngaa am sa looy jaay am looy wane waaye tamit am looy publicité Étoile TV tijj na la ci bopp buntam waaye tamit tijj na la boppam ngir xéewal gi sëñ Touba defar sëñ Touba moo woote dañuy def xéewal bëgg nga loo bëgg a wane am na numéro yi affiché fii ci écran bi jël ko nga daal ci woote ñëw wane la sa marchandise waaye tamit wane la ba Sénégal kii xam na Étoile TV fii ci Touba ngeen ànd ceeg gasam waaye ki nekk ci caméra bi mooy nonga maa ngi moom xam ngeen ni fu ñu ànd rek day neex dina leen dugal Touba gi yëpp yëpp yëpp yëpp toogu leen tëdd leen seen kawlal da ngeen mel a ngi biir Touba jërë ngeen jëf qadimahu ajibun bihi li jaadamu nin anin nafar haditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man lubu bi safar